amuñu du sunu gox ak sunu koñ te Bamba Ndiaye bi mu jàppee ba tey wax dëgg bàyyiwut benn yoon sunu koñ meer yi nga xam si ne duggi marché sax réegi sondantaamu ak bëgga kon dañuy ñaan Madické Niang nekk cinquième président ndax man ni ma gën a neex sama àdduna mooy ñu ni président mu ni doon taaru bi Serigne Saliou Mbàkke bu mag a mag a mag wax ne coalition ma dikkee 2019 kontaan na ci yéen ñëpp Bamba ñu ngi lay remercier ci sa mobilisation di la wax ne la jàppal rek ca kaw ca kanam dina baax incha allah di wax ne jigéen ñi maa ngi kontaan ci yéen ndax ndaje mu ñu dem yéen a fay ëpp yéen a njëkk a génn yéen a am détermination di kontaan ci yéen la jeunesse tamit ñu ngi leen di remercier ndax fu ñu dem gis nañ ne yéen am ngeen engagement kon nag jàpp leen rek dina baax incha allah teel a jóg teel a dem marché teel a taal teel a dem vote ji bu 6 jotee ñu ànd ak président Madické Niang dem palais fekk fa Macky Sall génne ko football ko ca biti dugal fa président Madické Niang. ñoo ngi ci gannaaw sëñ Xaadim Njaay di xale bu yaru du xale bu xam fu mu jëm. amuñu nag ñun lu koñ bi ku fi nekk muy jigéen muy ndaw muy mag képp ku fi taxaw dara incha allahu rabi man fas yéene naa la jàppale ngir jëm yàlla di ñaan yàlla la wenkaat bi incha allahu rabi yàlla nañu sëriñ tubaa dimbali ba ci barke maam jaara buso Macky Sall jóge fi si jàmm ak salaam muy bis bu nga xam ni moom lañ dëgmal muy la 24 février bii ñu jëm ñu toll ci jamono campagne mooy wàcc ci askan wi waxtaan ak ñoom dagaan seeni baat ngir ñu jàppaleel ñu suñu candidat taalibeb Serigne Touba bi taalibeb Cheikh Massamba di le président Madické Niang di leen xamal ne Bamba boo gisee ñu beral ko loxo nii ak ñu mujj fi xam ni yëf yi du ci silib caay la ci da cee bokk moo tax temps bi ñuy def feneen fii lañ ko mën a def kon Bamba bi ñu dikkee xam ne ni fii ñoo ko moom suñuy wax na du ci gudd ndax lañu ñu war a wax lépp wax nañ ko ndax bu ma jiite délégation sëñ Soy bu jiite délégation ñaar délégation wëlbati ku ñëwaat ñu daje fii kon loolu cër la boo xam ni yaa liggéey ci coalition bi président ma dikke taalibe la boo xam ne li ko tax a engagé wu mooy Touba ni ñu koy traité toujours di ko desal gannaaw daanaka loolu moo tax mu engagé ndax dañuy def poosam ba poosam di jeex tam xam ne lii état ko may defar moo tax mu ay kilifaam jox ko ndigal ni ko laajal réew mi ñu boole ak taalibe bi ñu jàppale la. ma dikke dara ñoru ko lu jigéen ñi ak ndaw ñi te yaakaar naa am réew nag képp ku ko bëgg a tabax ci ñaar ñi ngay tàmbalee te nee na li muy njëkk a def bu faloo mooy jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi te yaakaar naa ndaw ñi kat boo leen bëggee jàppale li gën a yomb mooy jàppale jigéen ñi ndax boo jàppalee jigéen ñi danañ jàppale seen i danañ jàppale seeni i borom kër danañ jàppale seeni doom danañ jàppale seen i rakk danañ mën a encadrer kër gi yar njaboot gi te bu boobaa benn xale dootul soxlaa génn te gis nañ ne programme boobu de cee liggéey programme bu am solo ndax li ko gën a metti ci àdduna mooy ndaw ñi nga xam ne ñi ngi jaar ci gaal yi kon yaakaar naa su ma taxawee waxtaan ci ak moom mu wax ci wax ju am solo jooju loolu dina baax lool ma leeral ko askan wi programme même bi ci njëkk nag muy jàmm xéewal bëgg na yéen Sénégal ngeen yeewu parce que bëggul ngeen topp kii nga xam ne aw fas rek la yor di dawal te kenn xamul fu mu jëm aw fas ku ko war danga koy wàcc waaye dafa lànk ne du ko wàcc kon len president ma Madické mi nga xam ne xéewal dong moko ñor dama bëgg ngeen xol kayit wi bu baax muy son bu la ñu def ci président Madické Niang lii nag mooy wane màndarga mi nga xam moy tax mu jot ci réew mi ba defal len li ngeen bëgg yeen wa Touba dama bëgg ngeen yewu taxol xool kayit wi bu baax Yen ñi nga xamne ne yéen a nekk fii yëpp xam naa université Cheikh abdoulat Lahad ngeen di te bëgg na université Cheikh abdoulat Lahad Macky Sall am fa zéro wirgil zéro ndax loolu moy sama ndam loolu ngeen ma mëna a loolu ngeen ma mëna sigélé ba yaakar ji président Madické am ci mandu tass su ngeen ma defalee loolu desalatu leen ma dara wàccoo ngeen ak man maa ngi di leen sant nag bu baax di wax ne nag toogaay bi metti na torop ñi ngi jéggalu bu baax ci toogaay bi wax dëgg yàlla gis nañ ñaari mitin yi nga xam ne am nañ ko fi gis nañ coono yu metti yi nga xam ne daj ngeen ko ci ñu leen ci sant di leen ci gërëm di leen xamal ne li ngeen fi wax lépp ak ñi nga xam ne ñëwaguñ ñépp ñi nga xam ne absenté nañ président ma dikkee dana dégg bu baax li ngeen ni jooy te bu soobee yàlla dana ci taxaw num mu gën a lépp lu man ci saafara ko dana ci jàpp ñi ngi li leen dagaan ngeen gën a sensibiliser nit ñi yéen xale yi nga xam ne nekk sama ginnaaw foofu nag la ñu yemale gi. sëtub sëriñ Touba bu toogee fii wax dëgg yàlla suñ xel war naa mën a dal ndax nag lii yombul yaakaar naa kon foofu la ñu tëje kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah